moom sama xarit la sama wëlëre la di nuyu fab sama nuyoo itam bi may nuyu sunu doomi bopp yépp teg ko ci loxol sëñ Basiiru mii mu sëñ Xaadim Awa Ba di sànni nag kàddu yu gàtt rek ci bis bii sëñ ji taxawal ngir fàttaliku sëriñam fàttaliku maamam Cheikh Mamadou Fadal jëmm ju mel noonu nag ku ko am war nga koy fàttaliku foo toll war di ko waxtaane foo toll ngir ñi ko fekkul woon mën koo dund ñi ko fekkoon mën koo nafa ndax léppam day njariñ léppam di tawfeex li sëñ Bass doon wax léegi dal na sëñ Fall sërif la kenn gënu ko waajur wu góor kenn gënu ko waajur wu jigéen waaye dëmoobu ko de dafa wayef toy nekk imaam tamit te ku ne xam ne imaam mooy cër bi gën a kawe ci islaam waaye dëmoowu ko titroowu ko nekk xalifa wutus kii wutu yonante bi sallallahu alayhi muy Cheikh Cheikh Ahmad Bamba wutu ko ci saahir wutu ko ci baatin ilif njaboot gépp yéen njaboot gépp di dimbale ñëpp gën a kawe ñëpp waaye wàcc gën a suufe ñëpp def ay rakkab yëpp ay sëy taxawu ay doomam taxawu taalib yi taxawu réew mi daan jël position nag bu mel ni amee kilifa day far ba nga fësal ko sëñ Fallou day jëmm joo xam ne mu ne ñàkk waxtaan ndax lim defal réew mi defal ko julli yi dafa rëy dafa nekk boroomu xam-xam nekk jaamukatu yàlla ndax daana wax ni ci imaam boobu sax dafa yéeme ndax bi suñ borom wàccee julli daanaka wax ni Seydina Amar dana cëpp dana lay yi ma ni cëpp bi muy dem def Isra wal Mihraj bi ci la gane àdduna tabaxal sëñ Touba jumaa ba noppi jiite ko loolu cër gënu koo kawe wutu sëñ Touba ni ma ko waxan saay rek baatin di taxawu taalibe yi di leen dimbali toujours dafa farak taalibe ànd ak ñoom moo tax taalibe yi amuñu ci moom sago bokk yi amuñu ci moom sago am ak relation nag jullit yëpp nag amul woon noonu comme ni ko sawaay waxe amul woon falancaar mi ak benn taalib ak benn jullit su réew mi masaa nax mu yëkkati kàddoom wax luy jariñ taalibe yi wax luy jariñ réew mi wax lu koy delloosi fi toll nag nit ñaa ngi xëccoo di wut ma dina xam ne lépp lu waaye di wut te wuti ko yar dana ko am soo ko amee lay tax mu toog mooy ay teggin kuy def nag koo romb suturaal ko foog yàlla dina suturaal te yàlla bind jëmm yoo xam ni boo leen rombee teg leen ab dof mën nga leen wooye sax ab dof moom lañ leen sax di wooye waaye soo leen tooñee woon la ñuy def ci yow mooy gën a metti la gaynde def ci yow ndax am na jàmm yoo xam ne bu ñu woon suñu borom bu saa taxaw saa du taxaw te ngi ci biir mbooloo mi te xàmmeewuñu leen moo tax koo gis suturaal ko rek ba tey suñu borom bi suturaal sañ Fall nag daal suturaal ñëpp moo taxam turam ba àddina tukki du fay day yokk waaye du dugg yi mukk jël kon nag nun ñi nga xam ne dañoo jaboote ñu yaakaar ko àddina yaakaar ko àllaaxira te xam fam jaaroon teg fa tànkam xam lam bëggoon xam lam luñ def lu dul roy ko ca loolee topp ko ca loolee ñu ngi ñu ngi ñu ngi àll ak suñu bopp ndax dem na ña ko àndoon te na leen la sëñ ci moom liggéey loo ko def na ko ba dara màkkiwu ci def na lépp ba mu àgg na sëpp jaboote ñëpp yooyu ñëpp ku mel na nag ku ko jaboote moom a jur rek doyut moom laa yaakaar rek doyut sëñ Fall du def njombe du wax njombe lu baax rek la doon def ba mu taxawee fii nii fu ne taxaw naa fa miim ni maa ngi sëñ Tuubaa ngi ne du man tey ji nag mën a la mu doon bëgg laay bëgg la mu doon bañ laay bañ koo bëgg a koo la sëñ Tuubaa bëggoon la bëgg la mu bañoon la bañ fa mu jëmoon la jëm ñoo bokk yoon yoon wuñ jaar tamit kon nag ñun ñii mu jaboote nañ jaar ci yoon wu we suñ kam lay kàttan ndax wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ilallaahi wa rasulihi su ma yudrikul mawt faqad waqa'a ajruhu yoonoom jaaroon suñ ci bëggee jaar suñ mënta dem itam yàlla dana dimbale waaye suñ ko bàyyee jaar ci benn yoon nag du àgg duñ jëm fenn muñ jàpp ak mbaaxam rek ak ak tabeem rek doy loo lu baax la mu nekkoon te di ko jëfe nañ ko ci kon bis yu ñëw mel nii ñëwee dañuy nafar bis yi jëmmi sëñ fan soxna yi itam ngeen dolli seen góorgóorlu dolli seen muñ dolli seen ak njàmbaar ndax nu ñëpp sëñ Tuubaa lañ yaakaar waaye man dégg naa ci seen daal benn bi su li mu ne sëñ Tuubaa doon waxtaan naan sawara dana fees dell ëllëg waaye borooy musóor day ciy ëpp borooy musóor moo ciy ëpp am benn jigéen bu ñu ne ko ah, sëñ bi de tey wax dalaa dikkal ngay wax waaye boroomi mbaxana itam bari ne fa lool ñu ne ko borom mbaxadam moo fa gis borom musul ko dugal kon nan góorgóorlu lu baax ci bëgg lu baax ak bañ lu bon di jàmm yàlla ak déggal seeni boroomi kër di rafetal bañ a wujjee bañ a xuloo bañ a xeex bañ a ŋaayoo loolu jëmul fent yóbbu amul benn njariñ sëñ Fall da daan tigle tuub sàkk sarax ak yeneen te jàmm ak fu waay jëm na ko fa yóbbaale loolu daan ko wax jumaa ji ba tey sag julli ajjuma sag sag sag sag suur kon tey damaa ñëwoon rek ngir sama xalaaxa bu am sama digg ak sañ sañ sañ sañ jiili mu yàgg maa wax bis bi may am ngànt mënuma ko sax waaye nag koo xamul noo ko def nam lay dafa tax sun doom yi dañ leen a nawloo sëñ Bass mi mi ngi seere lu baax waaye li mu wax ci moom rek la nekk ku baax la ku bëgg lu baax la ku bëgg bokk la ku mën a dox ak bokk la tey defaree bokk kon nag yàlla na sëñ Tuubaa sàmm te la sëñ dafa man tey damaa ñëwoon pour taatan say kàddu ndax say wax am na njaay waxi Pastef waxi xam-xam yoon wi nga jaar tamit yàlla yoon wi nga xam ne yàlla nattoo la nga jaar ca sa baajaani yàlla bala dara dog yàlla na nga mucc ci ndab waaye mucc ci ndab barki Cheikh Mamadou Fadil ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu